donc loolu la ñu mës a prôné loolu la ñuy wane loolu la ñuy jéem a wane comme xar kanam ba tax na rek ci euh, loolu la ñuy continuer ak ak sénégalais yi ak képp koo xamante ne jamono ji yaa ngi ñuy suivre fii ci en direct hôtel Azalaï euh, rencontre bi nag xam naa ni léegi mu tàmbali ndaxte mu ñoom dañu war a def déclaration officielle dinañu dem dina ñu wax visite bi euh, fan lay tàmbalee ak site yi nga xamante ni fa la war a dem. donc bi si jiitu mooy gis nañ ni suba dinañuy dem ci temple du savoir muy ICAT euh, fa lañ nar donc dañuy jël euh, directement rek quelques réactions bu ko defee ñu dellu si waat. Euh, bonsoir amis fidèles internautes Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax nu sommes en fi nga xamante ni moom mooy Azalaï Hôtel. donc gis nañu ne ki nga xamante ni moom mooy euh, Jean Mélenchon euh, jamono ji ñuy wax ak yéen nag mu ngi Sénégal euh, tey waroon na am rencontre bureau bureau politique bu waa PASTEF ak moom laataa muy continuer li nga xamante ni moom mooy ay activité ce matin gis nañu ki nga xam ne moom mooy Ayib Daffé mu daal di koy recevoir ak délégation bu mu àndaloon donc dañu ñëw ci fi nga xamante ni moom mooy hôtel Azalaï Toussaint Manga la ñu toogal moom mu nekk secrétaire donc dañ secrétaire général adjoint donc dañuy ñëw très rapidement rek ci rencontre bi ak visite bi euh, malgré gis nga euh, li ci xew yëpp ci communication autour de de la personne. Euh, waaw je pense que visite bi euh, suite logique la boo xam ne euh, diggante bi rafetoon na entre. partie bi Pastef les Patriotes ak groupe Euh, boo xam ne mu euh, ngi ca ca France nga xam ne c'est mois euh, France insoumise te monsieur Jean-Luc Mélenchon jiite ko nga xam ne bu ñuy xeex démocratie pour Sénégal ñoom dañoo amoon taxawaay boo xam ne dañ ci àndoon jàppale ñu si xeex boobu nga xam ne xeexum démocratie la donc tey jii nii bu ñu ñëwee fii. lu war a am la du lu bees parce que ñëpp xam nañu diggante ñaar ñaar ñaar cadre cadre politique yi donc loolu moo waral euh, tey ñu rafetlu ñoom bi fii euh, muy wane tamit tey benn dimension politique boo xam ne euh, Pastef jël na ko parce que Pastef du partie rek boo xam ne dañ ko war a jël tey tënk ko biir Sénégal parce que trajectoire na ni Euh, amul dara lu muy envier yeneen parti yoo xam ne ils sont au niveau international parce que taxaw na xeex démocratie nekk ci ay principes yoo xam ne permet na ko mu accéder démocratiquement au pouvoir donc tey Pastef référence la au niveau euh, au niveau africain mais aussi référence la au niveau mondial. Euh, tey ci wàllum programme gis nañ ni demee dafa war a dem ICAD pourquoi le choix de ICAD. waaw loolu euh, tamit c'est tout à fait tout à fait normal xam nga université moom fa la euh, ndaw yi nekk euh, pour sakku xam-xam mais dañuy ne réew boo ko bëggee natt tam del xool ci ay ndawam nu ñu gisee monde bi te dañoo tollu jamono boo xam ne ñun jeunes africains yi dañu war a am benn gis-gis bu utee ak loo xam ne moo fi nekkoon. Euh, dañu war a décomplexe euh, tax ba nit ku ñuul ak ndaw africain yi ba am benn complexe par rapport ak euh, yeneen jeunesse yi loolu nag bu amee day laaj que ñu xoolaat encore yan relation la Afrique ak ban position la Afrique war a mën a am dans dans dans le monde loolu moo waral conférence bu war bi am suba UCAD mu am importance parce que dañ ci waxtaanee diggante. Sénégal wala diggante Afrique ak yeneen pays yi naka lañ ko mën nee def ba ku ci nekk da ngay gis sa morom waaye du nekk diggante boo xam ne kii day nekk ci kaw di jéem a noot kële wala nekk diggante boo xam ne kii day xaaw a jël économie kële di ci profito diggante bi dafa am diggante boo xam ne da ngeen di liggéey ànd ku ci nekk gis ci intérêt am ànd tam en égale dignité donc loolu lu am solo la booy éveillé nag euh, dëkk. jàpp naa ni boo ko tàmbalee si euh, masse estudiantine bi nga xam ne am nañu degré de compréhension te foofu la nit ñi tam bërëb xam-xam la fa la nit ñi tam di waxtaane lépp loo xam ne euh, ci la ñuy former jeunes yi donc boo waree forme jeunes yi il faut am discours boo xam ne man ngeen ko waxtaanee ak ñoom donc man jàpp naa ni lu rëy la te dina utee lool ak euh, discours bu ñu déggoon fii il y a quelques boo xam ne Sarkozy defoon na ko fii parce que ñëpp xam nañu quand même position bu Mélenchon am ak gis bu mu am si diggante bu war a am entre euh, France ak keneen dëkk Afrique yi. alors tey gis nañu ki nga xam ne moom mooy le premier ministre Ousmane Sonko depuis bi mu ñëwee au pouvoir ba tey euh, mi ngi def la partition entre parti Pastef ak pouvoir bi. tey bokk na ci li tax euh, visite bi mu am mais acte yi nga xam ne moom lay pose peut-être am na ñoo xam ne jàpp nañ ne euh, position wu euh, lay xool nu mu gën a nu mu gën a ñoŋee par rapport ak yeneen parti politique yi fi nekk est-ce que visite bi aussi mën na am benn impact ci parti Pastef non il faut d'abord premier point bi mooy bu mu ñëwee ba léegi mu ngi def différence entre pouvoir ak ak ak ak parti bi loolu lu am solo la lu am solo la parce que waruñu utiliser moyen état bi di ko jëfandikoo pour parti bi moom bu mu ñëwee lu mu wax leer na nee na en tout cas bu liggéey parti bi jotee da ngay jël état teg nale jubal si parti bi bu ñu jaxasee ñaar yi parce que jaxase ñaar yi mooy andi léeg-léeg nit ñi di def euh, le parti <laughs> avant la patrie or ñun jàpp nañu la patrie avant le parti te waruñu sa bokk ñu sa boobu donc euh, en tout cas ak ci mu posé euh, ñooñu ñëpp ñu ngi koy rafetlu te mu war a nekk loo xam ne ñëpp ci la ñu jël référence si responsable parti bi bu mbirum politique jotee nañ ko defee si parti politique nañ ko defee fu ñu ko war a defee bu mbirum liggéey état jotee nañu liggéey si euh, loo xam ne. liggéey état la parce que mbirum état sénégalais yëpp ko moom ñëpp ko bokk mbirum parti politique nag parti bu comme ak militant mi ñoom la concerné donc loolu il faut que ñu travailler ci am ci culture bu am solo ba bu suba kenn du jaawale mbir mu état ak mbir mu ak mbirum politique. ñuy jeexale tamit euh, fu mu nekk nii euh, boo xoolee tamit ñu ngi posé nu mu la waxee Pastef partie bu mag la. parti bu mag la boo xam ne tey parti de référence la bu nekkee parti de référence nag dañuy continuer. di di màggal jëmam si Sénégal mais tam màggal jëmam si Afrique màggal jëmam à travers le monde donc tey Pastef war na mën a toog waxtaan ak ñëpp ñoo xam ne ñi ngi si Sénégal wala ñi bitim réew ñi ngi Afrique bokk nañu gis-gis ak moom parce que ñi bokk gis-gis war ñu mën a ànd loolu du problème. di nga gis ñoo xam ne ñi ngi dajee si yeneen cadre la léegi nga gis ña la international libéral ña la international social socialiste ñooñu dafa maa jàpp ne ñoo bokk gis-gis. donc ñun bu ñu amee suñu gis-gis te ñu gis ñoo xam ne ñoo ànd ak ñoom si gis-gis boobu gis naa gëm naa ni euh, du problème boo xam ne war nañ ko mën a am pour rencontrer ku ñu war a rencontrer. gis nañu yenn ci journalistes yi on peut citer le cas mu nekk journaliste bu mag Sénégal gis nañu mu ne yéen militants yi nga xamante ne yéen waa PASTEF warul leen mën a jox importance visite bi ba yóbbu ko ci dimension bi lan ngay tontu ci loolu. bon liiruma lu mu wax mais je m'abstiens bañ a commenter daal euh, gis-gisom la xam nga ñun moom réewum démocratie la ñu nekk euh, liberté d'expression la ñu bàyyi donc ku ci nekk boo amee sa xalaat moom dañ lay bàyyal ak sa xalaat rek loolu moom gis gisoom la ah, voilà mais euh, ñun bu ñu amee tam beneen gis-gis tam suñ suñu liberté la loolu moom du problème. donc tout à l'heure xam naa ne di ngeen def déclaration bu officielle le temps ngeen terminer li nga xamante ne moom waaw incha allah xam naa ci kanam merci. voilà